والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ورضي الله عن صاحب الختم المحمدي رباني مولانا أبي العباس الشيخ سيدي أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه وأن سائر الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين ومنهم خاصة jaddina wa cheikhina wa qudwatina wa malaazana cheikh seyd alxaaji malik ibnu osman alayhi ridal malik asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi dellu di nuyu ci ñetteel bi yoon ci xaaj bi nga xam ne incha allahu taala ci lañ fas yéene yeggali li dul yegg jeexal ci li jeex mottali ci lidul mat te loolu moo di waxtaan wi ñu tàmbali woon ak yéen ci Maulana Cheikh Seyd Malik ibnu Osman alayhi ridal Malik fa tabaarakallaahu ñu ngi yemoon ak yéen ci digganteem ak muqaddam yi bari nañ niñ ko waxe woon ku mel ni Cheikh Alxaaji Rawxan Ngom ku mel ni góor Aliyun Ba ca Ngumba ku mel ni góor gi Peedar Jóob ku mel ni góor gi alfahim góor gi alfama yoro di bàyyi sëñ Abbas Sàll di ku mel ni sëriñ Hadi ak mag ñi nga xam ne ñépp rek kenn mënu leen lim fa tabaarakallaahu ñu yemoon ci diggante ak sëñ Hadi doon waxit ne incha allah tey danañ ci sof lenn ci loo xam ne day niru kiraama rek ci Seyd El malik Malick fekk du kiraama ndax Maodo mosul wane kiraama benn yoon ndax sopp ko woon bokkuloon ci wali yi nga xam ne dañuy tiitaroo kiraama fa tabaarakallahu moo tax ma waxoon ne Seyd El malik Malick daan na wax ni kiraama bi gën a rëy mooy teg sa tànk ci sunna ak sharia di ko doxal ndax bu dee dox ci géej gi bato yee ñu ko dàq ak jën yi bu dee lekk safara boo demee ci àll bi fekk fa koo xam ne gëmul yàlla gëmul yonent bi mën naa lekk safara te du lakk su dee naaw ci jaww ji di nga fekk picc yee ñu ko dàq fuuf te ñoom ci la leen yàlla bind kon li ñu moom te ndam nekk ca Maodo daan ko tiitaroo mooy jaamu yàlla teg sa tànk ci sharia ak sunna te loolu la yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran ci ay ayat yu baree baree bari bokk na ca wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yabudun binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma wa ma maa uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun bëgguma ñu jox ma benn wërsëg bëgguma it ñu jox ma lekk ndax yooyu soxlawuma ko kon ci jaamu yàlla lañu yàlla bind ba ca topp moom suñ borom subhaanahu wa taala mu wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waabud rabbaka xatta yaatiyaka al yaqin jaamul sa borom ba dee ñëw rek kon bul teggi sa tànk loolu nag ci la ndam nekk moo tax Seyd El Hadji Malick woon boobu te bàyyi fi kiraama daan na wax it ne wali buy def kiraama ni mu ñaawee ci moroom wali yoom mu ngi mel ni rek julli jot ngay góor ñu ne la doxal ci kanam jiite nga ne dama indisposé dama am règle fatab noonu mu ñaawee noonu la def kiraama ñaawe ci nitu yàlla yi moo tax Maodo taamuwu ko woon bari na yu ko not nag nit ñi foog ne kiraama la fekk du kiraama xaal xaalu wali yu léeg mu not ko am yu ko dikkal mu def ko fekk jubluwu ca loolu moo tax sëñ Haadi Touré radiyallahu taala an waxoon naa ne bi muy dajeeg Seydil Xaaji Malik lu nit di jàng-jàng na ko ba xam ko waaye mu yëg ne ndekete woo bu dee yegg ci yàlla nag Maodo ko ca raw mu ànd ak moom ci loolu Maodo yëkkati doomam jox ko wax na ne nekk na juróom-ñeenti at ak Seydil Xaaji Malik 9 ans yoo xam ne Maodo mosul tarde julli ca jàkka ja waxuma ci tarde julli rek waaye ca jàkka ja fajar tisbaar tàkkusaan timis gee yëpp nee na ci jàkka ja lañ ko daan joxe nee na lu dul benn bés la gis Maodo tardé jullik timis mu ne te boobu dañ nekk ci chara yi chara yi di yër di yër am masala yuñ doon xool ba dégg jàkka ja di nodd mu ne ah loolu de dafa mel ni nodd la am na ñu ne ba dégg jàkka ji di sëlmal mu ne a ah, loolu day kon nañ dem jàkka ja waaye bi gën a wërte sëñ Abdu nettali ko mooy dañoo yegsi ci jàkka ji fekk ñuy sëlmal kon nodd la woon nee na bi ñu yegsee mu ne ku ne na jullil boppam ndax loola tamit mooy sharia boo ñëwee ci jàkka tardé bëgguñu ngeen sosaat beneen mbooloo di julli dañ bëgg rek kenn ku ne jullil boppam moom lañ gën a sopp Seydil Xaaji Malik bañ jullee ba yeggal mu ne keroog lañ mës a gis Maodo tardé julli ci mbooloom jàkka loolu loo ciy déggee mooy benn taalibe tiijaan amul ngantal dem ca jàkka ja te dafa bokk ci chartu tariqa bi boo koy jël dañ la naan dangay julli waxtu yi juróom ca seen waxtu ca mbooloom jàkka ja fekk amoo ngant su dee jigéen nag soxlawul ca jàkka ja waaye ca waxtu wa rek moo tax nag Seydal Xaaji Malik jëloon tànkam teg ko ci sharia ak sunna di ko doxal ci loolu la yeggoon ba muy tëndiku lépp lu ko yàlla tere kenn mësu ci gis Seydal Hadj Malick waaye yeggoon na ci martaba boo xam ne ak dayo boo xam ne jafe na nitu yàlla yegg fa waxuma la nit simple moom mënu fa yegg <laughs> waaye nitu yàlla bu fa yegg sax dafa jafe ndax demoon na ba li daloon sëriñam Cheikh Sidi Ahmad Tidiane dal ko yi dagan sax demoon na ba xaraamal ko ci boppam maanaam ba bàyyi xaraamalu ko waaye ndax yàlla lu daganal kenn du ko xaraamal waaye demoon na ba tere ko bakkanam yàlla lu mu daganal kenn du ko xaraamal waaye demoon na ba bàyyil ko boppam ndax teeg rek lew na ak lewut moo daloon Cheikh Sidi Ahmad tiijaan yi ci suukar demoon na ba lekkatul suukar ndax dafa am ca jamono yooyu lu ñu waxoon ne dañ koy boole ci suukar si ñii ne sàngara la ñii ne lii la ñii ne lële la mu ne comme lënt na daal na ko teg moom ci suuf ba am ca lu leer moom Seydina Cheikh radiyallahu taala an ba mu demee ba am ci lu leer ñu ne ko léegi leer na ne sàngara si defuñ ci suukar tals bi amul suukar si amul sàngara mu ne ah, yàlla taxoon ma bàyyi ko comme dama ko bàyyi woon ngir yàlla dootuma ca delsi gis nga mu ne comme yàlla taxoon ma bàyyi ko dootuma ca dellu Seydina Cheikh mujj dundam yépp lu lekk suukar Seydi El Hadji yeggoon na ci martaba le ba li ko daganoon lu ci bari jëfandikoowu ko bokk na ca daaw lekk meew daaw lekk soow daaw lekk yàpp yooyu yooyule Maodo yi ñuy jëfandikoo ñun yépp Seydi El Hadji Malick daaw ko jëfandikoo ndax bañ ko laajee dafa ne ah comme sàmm si amuñu vigilant vigilant wuñ ba xàmmeewu ci moom gàtt bu ruur toolu jàmbur ak bu ko ruurul wala bu lekk yëfi jàmbur ak bu ko lekkut comme xàmmeewu leen mu faf bàyyi yëpp rek mu ne ndax mën na naan soow mi fekk gàtt bi mos naa lekk alalu eh, ñaxu jàmbur walla toolu jàmbur mos na ko ruur wala lekk na soqub jàmbur bàkkaar ba topp ko mu lekk ko mu toppale ko nee na loolu la cay bañ moo tax Maodo ji dundam lekkul soow daawul naan soow daawul naan meew daawul lekk yàpp loolu nag xam nga jafe na wala yu yàgg fa te yàlla rek tax te xaramul waaye dafa bokk ci maratib yi nga tax yi tax nit gaaw a am yàlla yi nga xam ne dañ la ko te dafa daggan te boo ko lekkee mu wàññi la nga bàyyi ko yooyu Seydi Hadji Malick daaw ci caaxaan sax lépp luñ ko mos may charia may ko ne ko lii daggan na rek moom daf koy teg fale ndax ñoŋal bakkanam ak ñoŋal diineem ak ñoŋal ngoram ba digganteem ak boromam sell set loolu la ci jublu woon moo tax façon yooyu def na ci yu bari bi ci des wàllu modestie Seydi El Hadji Malick waxoon naa ci ca début ba euh, wax nañ ne mos na jóge njaar ne di ñëw Tiwaawan ànd ak magam bu ñuy wax góor gi ab du booli Fall Seydi Hadji malik góor gi ab du Boolee ko mag ñoo bokk benn ndey faawaadewele leen jur nee na fas yi di benn góor gi Abdou Boli ne Maodo waral fas wi mu ne ko ëpp naa def duma war fas wi ndax yaay sama mag duma ma war fas wi ngay dox Maodo ne ko waral fas wi mu ne ko mayit maay sa mag waaye yëg naa ne li la yàlla sédd sédduma ko kon mayit ñemewumaa war ci fas wi ngay dox ñu bokk di ommat fas wi ñoom ñaar ba ñëw ci benn dëkk benn kilifa gu fa nekkoon yëg ko ñu ne ko ah Maodo ngi ñëw Maodo de romb na ci dëkk bi yegsi na sax waaye dafay tànku ne benn fas la am te munu koo war bàyyi magam ci la nag góor googa jël fas jox Seydi El Hadji Malick Maodo war a fas woowa magam Abdou Booli war wa ca des loolu yëpp gis nga ci wàllu respe te nit ñi yooyu yëpp dañoo dem ba caaxaanee ko fi mu ne foyee ko ku la mag rek danga ko war a jox cëru bàyyi gis nga yooyu nit ñi di sew di di di xeeb mooy yeggali nit ci yàlla mooy tax sa digganteeg sa boroom neex waaye mooy tax sa digganteeg say mbokk neex fa tabaarakallaahu noonu la nekkee woon ak magam góor gi ab du Booli eh, ci eh, yeneen mag ñoo xam ne it noonu la nekkee woon ak ñoom ci wàcce boppam mbokk na ca góor gi Peedar Jóob waxoon naa ko ci jamono yële ca gannaaw ma ne leen mag mu ci nekk da yoroon loo xam ni yaakaaroon nga ne lii fa la yàlla yam nga dajeeg Maodo Maodo woon la ne lii yeggul sax ca yàlla nga bàyyi ko ànd ak moom mu woon la yàlla ju set wecc mos euh, mos naa toog ak Cerno Yaxya Ali rahmatullah alayhi wa radiya anhu mag mu baax la woon ndax dund naag Serigne Touba dund naag Seydi El Hadji Malick ca 99 la gaañu 99 bii paase la gaañu te dund ak ñoom ñëpp mu nettali ma ci làmmeñu boppam mu ne mos na seeti Serigne Touba ca Jurbel nee di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom mu ne sëñ Touba mu ngi ko fekk mu toog ci suuf nee na mu rëdd benn ñetti rëdd. mu ne rëdd wu njëkk wi dafa rëdd ne diine ju set wecc bu sell bu raxut dara alaaji malik la ko yàlla defal diine ju set wecc ju sell ju raxut dara alaaji Malick la ko yàlla defal diine ju set wecc ju sell ju dara alaaji Malick la ko yàlla defal nee na rëddaat beneen rëdd ne dem màkk xef ak xippi mbàkke tànjang la ko yàlla defal dem màkk xef ak xippi mbàkke tànjang la ko yàlla defal dem màkk xef ak xippi mbàkke tànjang la ko yàlla defal góor gi mbàkke tànjang tijaan la woon mu ngi ne woon ci jurbel moom itam mu ne waaye am lenn xañ ko sa ndey xañ ko sa baay muy xolu jaam ñi man la ko yàlla defal moom Serigne Touba am lenn xañ ko sa ndey xañ ko sa baay muy xolu jaam ñi man la ko yàlla defal am lenn muy eh, nga xañ ko sa ndey xañ ko sa baay jox ma ko muy xolu jaam ñi man la ko yàlla defal nee na bu ci nekk ñetti yoon la ko wax kon yaa ngi cey déggee ne Seyd Alxaaji Malik mag ñépp a ko nanguloon ak sellam waaye na mag ñépp a ko nanguloon ak wilaayam ci sellam ci wàllu yàlla ci selal sellalit wilaayam fa tabaarakallaahu noonu la jàppe mag ñi nag di leen former benn par benn di leen yebal ci gox yi alaaji Cheikh Kànji mu yóbbu ko ca Jurbel góor gi Aliou Ba mu yóbbu ko ca Ngumba góor gi ma yoro Sàll mu yóbbu ko ca Ngiij Eh, sëñ xaaji rawaan Ngom mu yóbbu ko ca Paal góor gi Abdou Hamid Kan Abdoul Hamid Kan mu yóbbu ko ca Kaolack noonu la toppee woon mag ñi di leen avecté waaw euh, euh, euh, alaaji a Ja mu yóbbu ko ca Mbëllaxe fa tabaarakallaahu mu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk di professeur boo xam ne université nga yore fa nga nekk da fa ubbi iniversité boo xam ne ku fa génn rek di professeur mag ñooñu ñépp ku ci nekk bu la Seydal Xaaji Malik mayul doomam ka nga yor ci loxoom la jaar mu jox la ko mooy wane it ne nawloo woon na ay moromam waaye nawloo woon na it ay mbokk taalibeem waaw ñoom Serigne Aline Guèye mu féetale leen daara ja waaw ñoom góor gi njoogu waaw sëñ njoogu ñoo ñépp mooy mag ñi waroon Seydal Xaaji Malik waaye kenn ku ci nekk Maodo boppam la la jàppe woon xoolul benn yoon ngëneelam ak li ko yàlla defal ci biir biiri nawleem yooyu yëpp nag yu mat a delloo si la ci jamono bi ñu toll ndax léegi dama koy fañ faral di tooñee taalibe tijaan yi ma ne leen ku ci wird bi gënt ñetti gënt yu neex rek yaakaar nga ne léegi arash ngay fanaan waratoo am sëriñ woote yi commencé kenn ku nekk yaakaar ne mooy sëriñul boppam eh, ku wax nga saaga ko amatoo kilifa te kuy dund ku ne foog nga am kilifa guy dund loolu moom na ko ñépp xam kuy dund ku ne foog nga am kilifa guy dund sëriñ bi la jox tarixa bu génnee àddina sax bu la neexee doo yeeslu fekk defoo lu jar yeeslu waaye dafa jaadu kilifa gi la jox tarixa di sa sëriñ bu génnee àddina nga seeti kilifa guy dund def ko kilifa sooy dem tàggu ko looy def tàggu ko su la nee defal nga def su la nee bàyyil nga bàyyi fa tabaarakallahu seydil xaaji malik nag ci loolu la yar njobootam wax naa ko góor gi Peedar Jóob mu ngi nekkoon fii ci ndakaaru bokkoon ci magu la yi waaw yeggoon na ci yàlla foo xam ni eh, lim daan lim daan def bu ko neexaan day yëkkati sijaadaam rek nga fekk fa xaalis bu dul jeex wala bu tibbee ci suuf xëcc or topp ko ba mu doyal mu dagg keroog bi mu dajeeg Seydi El Hadji Malick Maodo laaj ko loo mën mu wax mu wax ko ndax wolof it day wax ne balaa ngay bàyyi li nga yor nañ la jox lu gën li nga yor waaw bàyyi li nga yor nañ la jox lu ko gën bi nga xamee ne góor gi góor gi Peedar Diop jëflante na ak Maodo Seydi El Hadji Malick ne ko lii rek nga lii nga ma bëgg a woon mu ne ko ah mu ne ko lii day kuy lekk ci kontam la compte booy retiré nag te versé woo fa dara bu yàggee mu jeex mu ne ko sa compte ci yàlla ngay dagg di lekk mu ne ko noo def ak yonent bi mu ne góor gi Pedar Jóob ne ko ah ci naka mu ne ko ci wàllu waxtaan ak moom toog ak moom mu di la orienté mu ne ko ah mën naa ni sax li ma gënti gis ko bariwut mu ne ko kon nag dangay bàyyi lii lépp ma am fu ma jaar ak yow waaye balaa mu ko ba lam mën Seydi El Hadji def na ko ba mu gis ba mu xam ne Maodo Maodo mën na lii mu door ko wax buñ jullee tàkkusaan ba pare nga yegg ci pantare bi ñu julli tàkkusaan ba noppi Maodo ñaanal ko am ñu ne daf ko jox tarixa bi ne ko yeggal ci pantare bi mu yegg ci pantare bi fekk fa góoru naar gu toog rafet xees pecc mu nuyu ko waxtaan ak moom ne ko yow la kan mu ne ko man la rasulullahi mu mag ñëpp loolu du kiraama waaye ñi ko man yombut mën nañ la sax jox dog nga gën ti gis yonent bi mën nañ la jox dog nga eh, am sax benn rêve bu neex ci yonent bi waaye nag demal ci pantre bi koo fa fekk nga wax ak moom loolu martaba boobu ñi ci yegg bariwut loolu Seydina Cheikh radiyallahu taala an moom la defoon ak Moulay Idris tabaarakallaahu mu doon waliyu bu mag nekkoon ca Maghrib doon buur nekkoon ca Faas Seydina Cheikh foofu la jaar ak moom ba mu nekk Tiijaan ndax booba jamono entre parenthèse Seyd Alxaaji ma euh, Cheikh Seyd Ahmad Tijaani euh, dafa ñëw Faas di fa gan jógee Algérie fekk fa boroomi xam-xam yu du jeex ñu di ko kontar lu ne ñu def ko am na juróom-ñetti fukki mag 80 mag ñoo xam ne seen métier duwuloon lu dul xëy di sikkar pour Seydina Cheikh génn àddina ñaay ñoom ñëpp suul na leen seen métier moo doon sikkar rek pour góor gi dem biñ demee dem dem ba luñ ko dara nag ñu ñu ne xaaral ñu seet benn kër bu nekkoon ca Faas ñu koy wax Daaru Miraar ku fa mos a dëkk doo fa def une heure de temps wala boo fa de jant bu la sooyee balaa fajar jinne ji fa nekk fàdd la Seydina Cheikh bëgg kër ñu ne nañ ko jaay booba dañ ne ko mujj gi sax ñu ne ko dañ la koy may ndax xam nañ la fa ne te moom xamu ko ci waxit waaye xam na ko biñ ne dañ la koy may dañ ko koy mën a mu ne déedéet moom ci dooleem la koy jënd nañ ko wax ñaata la ndax du lekk àqu jàmbur gis nga delsi na ca la Maodo defoon ca Jaksaaw ñu wax ko mu jël xaalis jënd kër ga ñu ne waaw kañ nag lañ bëggoon am na comme moo jëndal boppam kër kër gi te ñun ñëpp lu ne def nañ ko pour mu dee mënuñ ci dara bu soobee yàlla nag ñun ñëpp nañ fecc ndax xam nañ ne bu fi fanaan balaa bët di set mu dee ndax ku fi mën sa fanaan dee nga Seydina Cheikh jënd kër ga defar ko dëkk fa guddi gi mu fa njëkk a fanaan ñëpp di jonkon xaar bër set ñu jël ko yóbbu ci armeel ya Seydina Cheikh xëy jubali ca zawiya ba ñu topp ko mu ne ah, yàlla baaxe na ma ba ki fi woon biig day juboo na man ba jël na tarixa bi muy jinne ji nga xam ne moo fa ne woon ku fa mos a ñëw mu fàdd la mu ne ah bi ma fi ñëwee biig de toxu si fi yàlla am na dëkkandoo bu ma fi bu ma fi fekk ah waxtaan na man ba jubóog man ba jël na tarixa bi ba fi may waxee yow kër ga kenn ñemewu fa dëkk boo demee ca fas kenn dëkku fa ndax la ca Seydina Cheikh du keneen waaw gis gisum dem naa fa ay yoon waaye ba léegi ba fii ma toog di wax ak yow yëguma ko fa dëkk Seyd El Hadji moom it may yooyu yàlla mayoon na ko ko waaye du kiraama yu mu daan wone nit ñi nag dañ foog ne kiraama la waaye ja situation mooy toll foo xam ne pour orienter nit ki te ki ngay orienter daf koy jar ndem parti politique yi buñ gisee ko am mbooloo nekk ci beneen parti daañu def lu ne ba indi la ci seen parti ndax lan da leen di yokk doole kon nag boo gisee wali yu boo xam ne yow mission bi nga nekk mën na la caa dimbale wan ko lu tax mu dimbale la ci mission bi loolu rek la Seydi Hadji Malick doxalanteeg ñoom Seydi Seydi Cheikh Ahmad Ahmad Tijaani moom it loolu rek la doxalanteeg ñoom fa tabaarakallaahu moo tax Seydi El Hadji Malick royee loolu ci sëriñam Cheikh Seydi Ahmad Tijaani Seydina Cheikh radiyallahu taala an wax naa la ne noonu la doxale woon ak Moulay Idris ba mu ñëwee ba waxtaan ak Moulay Idris mu am yu mu waxanteeg moom Moulay Idris am yu mu ko wan noonu la doxalante woon ak euh, ku ñu ñuy wax Mouhamadul euh, ku euh, astaghfirullah Mouhamad Damrawi ñooñu ñëpp ku ci nekk yeggoon nga ci marta ba boo ku mel ni yi bi muy taseeg Seydina Cheikh lu ne la daan def ci wàllu lasraar comme yooyu yi góor gi Pedar Diop daan def yëpp Damrawi daf ko daan def. génnewoo or ci suuf si lu la neex naaw ci lu la ne lu ko lu ne la daan def ci wilaaya ba ko Seydina Cheikh waxee foo toll ci gis yonent bi mu ne ko gëntu ko day xëy mosuma ko sax def Seydina Cheikh ne ko tegal yi ma jox la lu ko gën mu ne ko ah balaa ma koy teg danga may garantil ne li nga may jox moo koy gën Seydina Cheikh garantil ko ne ko danaa la may loo xam ne ci yonent bi kenn du ko am Mouhamad Amraoui 24 ans la dund daan na gis yonent bi vingt 24 fois par jour journée bi du 20 24 heures la kon une heure de temps bu ne dana toog ak yonent bi diiru lim dund te 24 ans la dund moom Mouhamad Amraoui te loolu mu ngi ko amee ci Seydina Cheikh radiyallahu taala an Seydi El Hadji tamit noonu la jaaree ak mag ñi foofu la jaar ak góor gi Pedar Diop fa tabaarakallaahu xam nga gis yonent bi yombut waxuma laa nag demal demal nuyu ko boobu beneen daraja la am na beneen góor gu ñuy wax góor gi maxtaar shérif maxtaar wax nañ ne sax setu dina Cheikh la nekkoon ca Mali koo ko gën a kéemaane digganteem ak Seydi El xaj mali ak geneen góor ñoo benn tey ñoom la ñoom ñoo ñoom moom shérif maxtaar boobu la bii Thierno Bachirou Tall mii moom ma ko nettali beneen bi sëñ Abdou ma ko nettali bu njëkk bi sëñ Abdou nettali mooy góor gi Maxtaar daf doon wër nitu yàlla yi Chérif Maxtaar ñu wax ko ne ko am na góor goo xam ne soo taseeg moom loo bëgg ci yàlla yàlla dina la ko defal jox ko tegtal yépp ne ko wax ko saar yi muy tari bu koy fekk muy euh, bu koy jiite jullit timis mu commencé Mali di wër fu ne dem na fa nitu yàlla bu mu yaakaar julli na timis ci sa ginnaaw boo taree rek mu ne du kii nee na bi mu ñëwee nag ci Seydal Xaaji Malik ci Tiwaawan nuyu ko nee da koo gis rek xam ne kii la te julleeguñ nee na e, timis jot Maodo ne ko jiiteel mu ne ko déedéet jiiteel ñu koy puusante boobu moom xam mu ngi seet bi xam saar ya nag comme am na wuute moo tax duma ci jël benn waaye daal ñii ne nañ e, e, wadduxee la ñii ne nañ inna ak lii ilaa fi qurayshin lu mu ci mën a am ci jullik timis la woon nee na biñ yegsee ba Maodo tari premier saar mu ne ah saar bii de moom lañ ma waxoon moom lay njëkk a tari nee na muy mu ne waaye taxul naa xaar deuxième saar bi nee na mu ñëw ba ci deuxième saar bi tari mu ne ah bii la de waaye ah yaa laytahu yaa laytahu yukarrir waaye yellante woon mu baamuwaat ko saar wi ma xam ne moom la fi muy daaneelee ci xolam li mu wax rek Maodo baamuwaat saar wi góor gi daanu ci suuf xam kon loolu niru na wilaaya waaye daf ko doon xettali waaw mu xalaatee ci xolam ne yaa laytahu yukarrir doonte xam naa ne léegi moom la waaye ay yellante woon mu baamuwaat saar wi Maodo baamuwaat saar wi fi muy daaneele rek Maodo waat ko moom mu daal moom mu ne dal ci suuf xam xam ne kii lañ ko doon wax mu tëjoog Seydi El Hadji Malick lam bëggoon yépp Maodo jox ko ko Chérif Makhtar moomu wax nañ ne sëriñam moom moo mu ngi woon Mali mu am bés mu toog ak sëriñam taalibe yépp toog sëriñ bi boobu xam na ne mu ngi waaj a génn àddina te bëgg na ku ko wuutu muy seetlu taalibe yi mu nga woon ca xaay xaay ca Mali fa la sëriñ bi nekkoon mu ne ñépp toog waxtu tàkkusaan ñu julli ba pare mu ne waaw man dey dama bëggoon ci yéen ku ma demal ci Seydi Hadj Malick léegi ñëwaat léegi mu ne ñépp ne booba waruwaay amut fasa amoon ci lu war waruwaay wu gën a gaaw <laughs> ñu ne waay góor gi moo féex xanaa ku amoon fas sax di nga dem weer door a ñibbisiwaat lu loo gaaw gaaw gaaw di ko def weer mu ne kan moo ma mën a demal Tiwaawan ñëwaat léegi bii nag Thierno Bachirou Tall moo ma ko nettali te bu ko nettalee wér na ndax moom mooy borom xaay ndax Cheikh Omar Fouti yoo tax te mooy xalifa Cheikh Al Hadj Omar nee na ñëpp di xoolante mu ne Chérif Makhtar yëkkati loxoom ne ko mën naa dem te ñëw léegi. nee na ñëpp ni kii moo ñemee yàlla yow noo mën a demee mu ne waaw bàyyi leen ko du moom yéen mënu leen moom nee na mën na bàyyi leen ko nee na mu ne ko euh, mu bind benn kayit def ci ma jël benn kayit bind ci muy muy leetar lem ko jox ko ne ko boo demee joxal ma ko Maodo te xaar mu tontu la nga indil ma ko Chérif Makhtar jël leetar ba doxa dox ba génn dëkk bi fekk mu ngi mu ngi kaala woo woon benn kaala bi mu doxee ba génn dëkk bi taxaw xool ndey jooram kenn gisu ko mu xool càmmoñam kenn gisu ko mu xool ci kanam kenn gisu ko mu xool ci gannaaw kenn gisu ko mu ne yàlla fii ma taxaw kenn gisu ma xam nga xel ne la ma jël engagement mënuma ci dara awma menn pexe mu ma demee léegi Tiwaawoon ñëwaat léegi awma ci menn pexe waaye comme mooy sama sëriñ te bëgguma koo gantal te ñëpp gantal nañ ko ah, moo tax rek may am ñu ne yàlla bu tey ñu ne mën naa ko léegi nag yaay sama sëriñ fa ñoom julee